bu njëkkoon élève bi bu daje woon nag jàngalekatam ci mbedd mi li muy xalaata def weesuwul daw làqatu balaa mu koy séen bu dee séen na ko mu jàdd jox ko ñaari loxo sukk daal di koy siyaare léegi nag weesu nanu sax rombante ci biir mbedd mi ay kurfeñ la ñuy dóorante ci biir lekkool bi nu sampab laaj ana moo deful li mu war a def ci diggante jàngalekat bi ak ndongo daara bi. waaw violence yi bari na te état bi aussi war na cee jug ndaxte. presque toujours keroog tamit maa ngi journal avec les élèves et les professeurs deux cas gis naa ci deux cas mais rafetul ñaawlu nañ ko lool état bi war na ci juk dal bu baax. waaw violence yi moom defe naa euh diggante professeur ak euh, élève euh anam yu nga gisé gisee bari na anam mën naa ne anam yi bari na soo xoolee soo xoolee élèves yi maanaam yar gi légui ci kër ci kër ga la la waa kër ga ñoo ñëk a échoué. moo tax looloo waral na su ñëwee fii nii professeurs yi duñ leen duñ leen jàppee comme niñ leen war a jàppee ñoom it ndax ah, soo nekkee sa professeur da ngaa war a jàpp ne kon yaa ngi sa parent soo respect bi nga jox sa parent moom nga war a jox say professeur man noonu laa ko gisee ko te en plus seetlu naa ne temps yi yëpp ah, coow li coow li bari na lool mais soo xoolee professeurs yi aussi war nañoo am tamit ñoom it ni ñuy doxalee waaw soo ndax ndax ndax élèves yi dañ leen war a jàppee ñoom it comme comme seeni doom. am yenn yoo xam ne nii war nañ koo daw ñoom it waaw loolu laa daal laaj laa ci mën a wax. mën na nekk si côté bu ci nekk. parce que mën nek tay il faut accepter de le dire mën nek ci enseignant bi parce que enseignant bi aussi bu amé ben écart de langage ak élève bi élève bi mën gis bopom surtout légui nga xamné dafa am ay conflit de génération ak xalé yi fu ñu toll bu fekkee ne da nga am yenn autorité de trop yi mën na blesser élève bi élève bi aussi parfois mën na am un mauvais comportement si le professeur n'est pas à la hauteur de pouvoir gérer def li ko may mën na indi ay affrontement physique te lolu moi je pense que en tant que jàngalekat mën na ñak parce que élève bi bu fekkee ne deful ko sant am na lu yoon wax boole ko responsable de classe bi mu yóbbu ko surveillance mbaa nga dem woy surveillant bi mu jël ci ko kon je pense que ne loolu mën na nek cas bo xamne mën nañ ko éviter. donc euh, pour affaire agression yi nga xamni bon c'est porté contre les enseignants man daal jàpp naa ne du rafet. waaw parce que enseignant mom serigne la waaw kilifa la kuñ wara sargal la ku ñu respecter la. waaw mais temps yi maa ngi dégg à travers la presse ñu naan dañ leen di agresser di leen franchement loolu moom li wala tek teg dal waaw rafetul rafetul waaw enseignant ñom ñoy défar cadre yu ëllëg ñoy ñooy ñooy ñooy fondation yi ñoy défar fondation yi nga xamni moy mooy euh, moy mooy téye réew mi ëllëg te fondation yi ñan la xale yi la te xalé yoy buñu réglé wul respecté enseignants yi déglu li leen di wax moi je crois que fondation du dëgër dal waaw. en fait euh, dañ koy ñaawlu d'abord di. Bok naqar bi ak euh, jàngalekat yi nek ci aduna bi yëpp di xam li aussi ben signal fort la bi nga xam moy mooy manque d'éducation bi nga xam tout le monde est responsable école c'est un lieu d'épanouissement ak lieu jang ak jangale ak sax xam-xam léegi bu demee école bëgg transformer wu un camp de rebelle wala nek un camp d'animosité su Boba les responsabilités doivent être partagées ñu xam tay parents d'élèves sont interpellés ñu xam tay maître bi ki nga xam moy joxe xam-xam bàyyi la yaay la kilifa la lépp la kon élève bi su ñëwee di jàng tey beneen moo war a nekk ci xelam leneen moo war a nekk ci xalaatam lu dul di dóor ay professeur wala di saaga ay professeur wala di leen métital kon tey li nga xam ne moom mooy situation bi mooy dañ ci war a jàng à l'avenir ñu tiire ci ay leson leson yi mooy tey yar bi war naa dellu ci kër ga ndax buñ bëggee bàyyi gone yi rek ak jàngalekat yi day am problème ndax xale nit laay wax ñett lieu lay amee yar mooy kër ga mooy mbedd mi mooy école bi ñett yooyu nag kenn ku ne bu ci bàyyi responsabilité bi dana garaaw ndax élève bi kër la jugee kon tey man li may ñaawlu tey mooy euh, élève boobu war nañ ko mën a sanctionner euh, tegaat ko ci yoon na sa sax tey ñu génne ko ci école bi pour joxe un exemple fort xam ne tey lépp lu mënti am comme que maître bi nga xam ne moo joxe xam-xam lañ aaye mu dóor wala mu saaga sàkkuma la xale bi. d' abord damay naqarlu li nga xam ne am na fële Blaise Diagne te sunu jigéen boobu di Kumba Dagg Ngom madame Dieng mu dal ko. di ko naqarlu di ko mettitlu parce que yaakaar naa mission jàngalekat mooy jóge sa kër ñëw joxe xam-xam bu ñu demee nag ba gis élève euh, di am ay comportement bay am problème ak professeur ba ci indi agression boobu am noonu du ñu def lu naqarlu ko di ko mettitlu mais liñ ci mën a wax rek mooy que éducation de base bi moo moom moom moo sooxee ci kër yi parce que léegi yar bi à part de la maison foofu la amee problème kon nag dañuy ñaax parent yi ñu gën a yar seen doom parce que ki nga ñu indil ci moyen collège jàng moo ko yëkkati mais am na yenn comportement yoo xamante ni ñuy gis ñun duñu mel lu adapté wu ci comportement yooyu te yaakaar naa ne mission jàngalkat mooy jàngal xale bi jox xam-xam ëllëg mu mën a jariñ boppam mu a jëriñ ay waajuram euh, li nga xam ne nag mooy am aussi tam ñu di ko constaté mooy que xale yi léegi aussi tam li ñu wax éducation civique dafay xaw a sooxe ci école yi parce que léegi da nga daan def ñu naan la booy génn dangay ngay traversé booy traversé ba ngay xool gauche ak droite booy booy booy booy lekk war nga wax lii boo bu la nit mayee war nga wax merci boo ñëwee jàkkaarloo nit war nga ko wax bonjour dañu gis ne tendance yooyu yëpp dafay commencé di di disparaître. phénomène la boo xam ne temps yi mi ngi commencé bëri quoi euh, bu si mujj mooy bi am Dakar Blaise Diagne bon temps yee passé dafa mel ne amoon na ci zone sud bi quoi donc phénomène la boo xamante ni mi ngi commencé jël ampleur te yaakaar naa ni il temps ñu jël ci ay mesures. Voilà. Bon, nous, peut-être euh, au niveau de l'élémentaire, on n'est pas exposé à ces genres de problèmes. Peut-être que les enfants, sont des mineurs, des enfants, ils peuvent les gérer. Quoi. Donc, le phénomène est japonais. Au niveau du moyen et secondaire, lay gën a gën mais de toute façon euh, jàngalekat yi ci boppam ñoo war a xoolaat seen taxawaay par rapport ak seen élèves yi parce que maintenant, si vous ci école diggu doom kat yi danaka bo len xolé ñok élève yi dañ nan sen différence d'âge wul man nga fa gis benn professeur sax boko xol bu baax da nga nan ki élève la kon liñ len magé danaka bari wul motax donc ñom dañu wara gëna xolaat sen relation ak élève yi surtout loolu ñuy wax walum déontologie yenn rapport yi vraiment ak yenn relation yi ñu bañ ko di am ak élève yi parce que enseignant ak élève aussi dañu wara a am ay limite quel que soit alpha waaw donc jang ak jangale mo len bolé su loolu wesso ku ci nek da fa wara xam ay distance am par rapport ak sa élève wala yu demee non donc boo gisee agression yi donc bëri ci kaaw élèves yi donc dañuy jàpp ni ñoom seeni moroom lañ wala ñii kat xam nga duñ ay mag yooyu wala ñii daal duñ yenn responsabilité wala yu demee noonu doo ko dox daal vraiment yaakaar naa ni phénomène boobu daal yoo il temps ñu jël ci ay mesures yoo xamante ni vraiment vraiment dina tax vraiment bu saafaraw une bonne fois pour parce que mënuñ continuer aussi di agresser enseignants yi comme ça c'est pas normal. mbir mi ni ma koy jàngatee dafa am ñetti rëq-rëq yu ci am bi ci njëkk ñun parents de élèves yi am responsabilité. ñun ñi nga xam ne ñoo jur ndongo yi ñoo leen war a wax sa diggante ki ngay jàngal nu ngeen di dëkkee ak nu ngeen di nekkee kooku am nañ ci responsabilité beneen bi ci des élève bi ci boppam am na ci responsabilité beneen bi ci gën a garaaw nag mooy maître bi jàngal élève bi moom nag moo jël responsable bi ci gi ci gën a mag ndax li tax ma lay wax loolu ay jamonoy 80 82 ba 83 ba 84 sama xarit yi ma doon àndal ñuy def sem 2 booba dinaa tudd ñaari monsieur rek ku dëkk Mbàkke bu ma leen tuddee da leen xam kenn ki madame Mané la kenn ki monsieur baaba Gissé sama xarit yi ma naan àndal buñ doon dox bay dem fenn bu buñ leen séenee lañ doon def dañ koy dagg daw làqatu ne suñ monsieur nga ne wala suñ ba nga ne ndax yar bu mu leen yoroon ak ragal gu ñu leen ragaloon ak lu ñu defoon ci ñoom waaye léegi dem nañ ba nga xam ne kii jàngal xale bu ko nobee wala muy sëq moom yenn waxtu sew ji cër ba mu ko waroon a jox dootu ko joxati yow mi jur sa doom boo ko waxul ki koy jàngal def ci moom xam-xam taxawaay bi mu ko war a ne ko kii sa papa la sa nijaay la sa jëwriñ la boo ko jàngalul moom it xale du mën a xam loolu. xale bi moom it bu toppee yenn réseaux yi lam ciy gis ak na ko nit ñiy dundee développement boobu egseegul Sénégal parce que ñu eggagun fooy toog sa biir kër am cours toog sa cours internet jàng ko xool la la ca neex la ca naqari nga kii ko loolu eggagun foofu. fii ci diwaanu Mbàkke bu dee ñu ëpp ci jàngalekat yi ñoom seen taxawaay ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax jombul ñenn ci ñoom ñu ngi faral di am ay doxalin yu nga xam ne dafay xaw a xumb wala sax nag mu daal di gàllankooru jëm feneen bokkul ak njàng mi nga xam ne moo leen war a tax a jóg. waaw relation prof ak élève maa ngi ko gisee noo xam ne mooy élève ak prof ñu ngi war a sekk benn relation mooy xam ne relation intellectuelle relation boo xam ne affaire jàng la ak aussi euh, ñu nekk ay lii daal ay complice complicité ci affaire jàng noonu laa gisee daal. relation relation prof ak euh, élève moom relation bu war a baax la war a doon. relation amicale relation mais aussi tamit dafa am élève euh, dafa am professeur yo xamni tamit dañ ci abuser ci relation di di ci doxal lo xamni ni nii lolay waral tamit yenn accident yi am ci ci école yi tamit aussi. non non non non xam nga euh, école ñetti relation ño fi nek relation enseignant enseignant relation enseignant élève avec relation élève élève donc relation enseignant avec élève il nekk nous relation euh, apprentissage avec euh, apprenant avec euh, enseignant l'élève à l'école quelle que soit sa forme quel que soit son niveau est un apprenant et l'enseignant doit avoir la hauteur donc loolu mom d'accorduma ci qui mange qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel loolu langage bu yàqu la amul donc les enseignants doivent avoir la hauteur avoir esprit de dépassement et que aussi damay wax souvent que ne enseignant bi dafa war a dimension bo xam dafa war a nekk parent d'élève fay tek dimension enseignant feulé mais day nek enseignant plus ce plus là nak tant que amuñu ko toujours rek moy indi euh, confrontation corps à corps yoy tan mën na bay aboutir à des violences. sont entre euh, enseignant enseignant élève bon d'abord enseignant élève enseignant war a enseignant la dafa war a dafa transmettre un un savoir n'est-ce pas élèves xamni xam dong la n'est-ce pas mais lolou bu wesso élève bi enseignant bi dafa war jël élève bi comme domam comme jarbatam comme rakam comme n'est-ce pas élève bi jël enseignant bi comme bayam comme nijaayam comme waaye grand frère am extra donc il doit créer il doit il doit mu am ambiance bo xamni ambiance bu réciproque euh, réciproquement euh, cordiale n'est-ce pas xam ni xam-xam moo fay jóge waaw euh, une ambiance de respect l'enseignant aussi doit respecter l'élève bi l'enseignant aussi doit respecter l'élève n'est-ce pas en faisant d'abord son travail correctement def liggéeyam ni mu waree élève bi aussi xam ni xam-xam moo ko yóbbu école mais pas autre chose que di agresser. en tout cas ku wàcc sa ànd ànd boo toog fekk ci boroomam kenn ku ne li nga doon boo ko xamut danañ la ko wax professeur li nga xam ne moom mooy rôle am ci école mooy mu jàngal mu joxe xam élève li nga xamné mom moy mooy moy mu ñew sàkku ci xam-xam diggante boobu nag diggante ubbeeg tej mom amul dara lu ci xëj digënté jàng ak jàngale amul dara dara dara luñ ci mëna bolé boole luñ ci bolé rek intrus la té intrus baaxu ci ci milieu kon relation professeur ak élève dafa wara a nekk relation doom ak bay nekk relation ndongo ak sëriñam nga xamné xam-xam rek mooy trait d'union bi xam-xam rek mo leen bolé leneen lu dul xam-xam rek buñ ko défé jadd nañ yoon. loolu yëpp ay phénomène yu am la mais duñ ko généraliser parce que nak xalé bi fi mu nekk. mën nga koo gis ngeen bokk fi ngeen nekk am lu am loo xamante ni feeñ na seen diggante muy cofeel wala dara mais il faut que nga xam ne la mission première bi leen njëkk a euh, lié yéen mooy da nga koy jàngal su fekkee nag leneen dafa dafa am nga bàyyi ba mu dem këram boo ko fekkee kooku kenn terewula ko mais règlement bi li wax mooy école bi moom élève ak professeur relation de respet de discipline moo fa am ndax yaakaar naa su amee rek heure bi nga ko yor parce que ay waxtu la dañ leen ne huit heures dix heures yow yor classe bii soo leen yoree ci anam yi ñu la jàngalee formé la ko préparé la ko yaakaar naa doo am problème ak élève relation élève professeur euh, comme relation normale ah parce que yéen lan moo leen boole mooy yow dangay ngay sàkku xam-xam kii daf lay jox xam-xam kon yaakaar naa relation bi c'est c'est c'est yow jàngal ngay def da ngay transmettre élève bi li nga xamante ni moom nga warloog moom mooy nga transmettre ko xam-xam boobu dans de très bonnes conditions comprendre nga léegi nag su weesoo loolu nag bon ku nekk aussi mën nga mën nga mën nga mën nga mën nga am say méthode yoo xamante ni moom ngay moom ngay jàngalee des fois da nga gis professeur yoo xam ne vraiment boo leen fekkee seen classe dañuy boole jàngale ak animation wala yeneen comprendre nga mais lu ci mën di am daal mooy rapport élève professeur nañ ko teg ci yoon élève bi xam ni professeur bi kilifa la

loolu moom moom ñi nga xam ne ñoo yor éducation ak ñi nga xam ne ñoo yor euh, mbaalum njàng mi war nañ cee xoolaat xool ñi ni jox di diplôme yi ñuy jàngal xale yi ci ban condition leen di jàngale parce que xale yi ku ci bëggum wala ku ci sa papa ne amul bac wala boo amul BFEM la jox cadeau jar na bu maître bi mën naa laa moy note yu baax fekk ma sama kër xale-xale la da koy jaral mooy mu dem sacrifier boppam mais loolu lépp ne li ko war a diggu rek mooy xoolaat ñiy jàngale ñooy ñan baneen laaj daal di samp ñeel ndax gune yi war na nañu mën a yóbbu ay ngànnaay ca daara yi ñuy jànge sabab bi weesuwul ñaar ñi nga xam ne dañ leen dóor dóor yu métti te lycée Blaise Diagne ak fale ca Ziguinchor. waaw def naa def na loolu moom c'est fatal moom loolu moom loolu lu yéeme ngi noonu dëgg la nag am na mais jàpp jàpp naa ne aussi euh, élèves yooyu noonu élèves yooyu noonu euh, comme yar gi la rek yar gi ci kër gi la rek loolu laa ko mën a waxee ndax. kër ga defe naa ne suñ suñu yarul xale yi rek suñ ñëwee suñ génne noonu la noonu la ñuy doxalee. Ah, élèves yi di indi arme ci école yi loolu du yoon loolu du wareefu élève élève soo jugee seen kër di ñëw ci classe sa saak sa kaye nga ci war a def mais pas arme arme du matérielu élève ci école. loolu loolu loolu c'est pas normal élève warul ñëw école di indaale arme. lolou mom que ñu wax ko ñak ko wax wóoru muy élève muy enseignant arme amul place am école lolou nak su fekké né amna cela veut dire que y a quelque part où y a défaillance waaw mais lolou warul mëna am. c'est dangereux c'est pas normal ap xalé bi loolu yóbbu kaye ardoise hein de matériel géométrique sac et cetera mais <laughs> mais <laughs> yóbbu ay ay ay ay comment dirais-je ay paaka ki pont moom franchement c'est pas le rôle d'un élève élève warul yóbbu loo xam ne dafa d'ailleurs ça c'est interdit par la dañ ko tere ci euh, règlement intérieur yi xale warul yor lu tranchant donc enseignants yi nañu jokk vigilance vigilance xale yi li ñuy yor mu nekk loo xam ne dafay gaañee ñu dañ koy moytuloo waaw parce que loolu day tax duñ tantewu di def ay agression dem noonu daal waaw mooy violence bi parce que tamit loolu aussi l'État est interpellé tey bu ngeen demee ci réseaux yi bu ngeen demee ci film yi yooyu la ñuy wane ay ay jikko la indil te tey école yi nga xam ne tey buñ buñ implantation école française au niveau de l' Afrique au niveau du Sénégal beneen affaire la woon tey bu demee ba xale yi tey léegi war a intu ñu créé intu ñu intu saak loolu mooy violence yi am na feneen fu ñu ko gis xale nag lu mu gis rek day yaakaar ne loolu moo baax kon violence bi dañ ko bëgg a transférer au niveau de l' te loolu baaxul ngi koy indi na parents d'élèves di vérifier état bi aussi na ci jël responsabilité am film yi nga xam ne dañ koy dawal di ko muy wane ay violence ñu jàpp ne violence moom mooy indi affaire bi ba pare aussi les autorités ñu nekk ci kaw kenn ku ne yaa ngi menacer sa morom kenn ku ne yaa ngi saaga sa morom xale bi si daan loolu day jàpp ne lii moo baax. xale bu jógee këram indi arme jàng indiwu la parce que arme élève yaakaar naa kay ak big la mais tey soo jógee sa kër indi arme dóol ko sa sac donc loolu yaakaar naa la yëkkati woon mi ngi mel ne supporter bi dem estade di xulóog di xeex donc seetaan la fa loolu nag euh, dafa am benn phénomène bu bees bu xew

donc parent bi moo mission première parent moy des fois mu def liñ wax visite inopinée dugg ci nek dom ji xol sac bi wala mën na ko génneel sac ma xol bu ko defee lu ca mëna nek ëlëk mëna ko fank parce que loolu lañ wax prévention mais tay élève bu joggé kërëm indi indi paaka wala nga indi arme blanche ñëw indi ko école rek jang jàng lu lén mo la yëkëti non xam nga loolu loolu dinaa ci wax euh élève école bo ci gis warna am gardien bu nek ci buntu ba wala ñi nga xam ñom lañ jël comme ay surveillant buñ la dénké ben nit ne le surveillant ko. da nga koo war a xool ci matukaay yëpp su fekkee ne ñun rëcc nañu ba dugg ba génn ak saag bi ci këram ndax man it wax dëgg yàlla du ma tëdd ak sama doom ci néeg su yeewoo 6 heures matin jël ay kéem jàng ay leçons xoolaat jug dem préparer dem jàngi mun muy rufe saaga mais ki nga xam ne moom lañ teg ci buntu école ba su dikkee bu solee blouse ma maanaam règlement intérieur école ba mën naa taxaw ne ah lekkat école bi désormais kuy ñëwati sa saag boo dikkee gardien bi dana ko fuyee. su ci gisee loo xam ne luy gaañ te tey beneen di ko gën a garaawal mooy euh, école boo dem bëri na ci dëkk yoo xam ne boo demee ci buntu école ba da nga fa gis ñu fay jaay aw ñal bërki démb dégg naa ñu ne étudiants yi jàpp nañ ci ñu doon jaay yàmba dégg naa ñu ne bërki démb am na étudiant boo xam ne doon avorté ci campus ba xam nga yooyu su amee am na ñu leen ciy dooleel ñi nga xam ne dañuy jaay loolu ci biir école bi ñi jàng tax a jug ak ñi yàq tax a jug ñooñu ñoom it dañ leen a war a jéem a segg jéem cee jël ay responsabilités njàng mi fii ci Sénégal na mu sooxe bu dee kenn ku ne la nga war a def nekkoo ca moo xam ndongo daara bi wala sax jàngalekat ba nga xam ne moom moo koy dalal ca lekkool ba jàpp kii nga xam ne mooy wuy juru ndongo bi ba ci nguurug Sénégal kenn ku ne war a xool yan yoon ak pexe ngay jël ba lépp delluwaat fa mu ne woon